remercier nag son excellence le président Macky Sall ndax ñun dañu di ay gor yoo xamante ni ku ñu defal lu baax ñu gërëm la duñu ay dofte iñaanuñu ndax le président Macky Sall yàlla dafa def ñu ànd 2012 mu jël réew mi dugal ma ci liste yi ma nekk député mu def ma secrétaire élu ñeenti at 2017 mu dugalaat ma ci liste yi kon kooku du ñu man lu dul gërëm ko ndax dafa ñu permettre ñu yeggale liggéey bi nga xamante ni commencé woon nañ ko ndax kenn umpalewul ni le président Macky Sall bi may ànd ak moom booba député la adjoint au maire la dama koy wax ni ko amoon nga ay nit yaraax waaye nag autorité bu ñuy wax xam ko ci réew mi mu dóor ay empreinte ci ci assemblée Mously Diakhaté nga fa amoon kon loolu dañ ko ciy gërëm dañ ko ciy gërëm ndax permettre nañu ñu jël suñu indemnité député déposé ko ca banque ya génne ko jox ko waa aat yi a a ñu di ci liggéey ñun ko ñu defal lu baax ñu gërëm ci jërëjëf waaye dañuy dellu wax ni mënoon naa gën a rafet ndax li mu waroon a mën a gën a rafete mooy li ci waa A3J am sénégalais yi am ko ci mën man li Diakhaté en tant que responsable moral A3J loolu laa ci am mooy lis yi génn na rek ma gis ni benn membre A3G nekku ci Mously Diakhaté nekku ci loolu nag rafetul parce que ñun duñu APR e ñun ay allié lañu A3G allié la man nag man ci sama bopp man damay wax ni duma APR e Macky laa li Cheikh Abdoulaye sama jàmbaar ja doon wax ni ki tax nga nekk murit mooy Serigne Bamba soo ko bëggee di murit soo ko bañee mënoo nekk murit kon soo àndee président Macky Sall day mel ni APR ngay liggéeyal soo dee APR président Macky Sall ngay liggéeyal kon ñun ay Mackiste lañu yàlla def nag le président Macky Sall yàlla boole ñu 2007 le 20 juin 2007 ñu daje assemblée 2008 partem di ko xeex ma nekk opposition takk sama ndigg ba mu dëgër def ni sénégali bu baax di def ànd ak moom ca xeex ba. 2009 keroog ba muy jaale si fii Touba sëñ Saliou yal na yàlla yokki leeram man Moustapha Cissé Lo Abdoulaye Seck maître Babou ñoo dem jëli ko ca Rokaatu Mbàkke bële ànd ak moom muy wër di siyaare ba ci yàgg mu ni ma gees ni ma dama bëgg a jaale sëñ Moustapha Saliou waaye dama dégg ni recevoirul benn autorité man ko loolu mën naa koo dox ndax benn doom bu góor bi ma am moom lañ ko tudd te mbokk deret la ànd ak sama boroom kër dem dox loola ba mu sotti mu ñëw sëñ Moustapha Saliou recevoir ko ànd ak moom julli tàkkusaan dugal nu ca biir berne ko jox ko cër bi ko yàlla jox kon sama digg ak Macky Sall moo mag APR sama digg ak président Macky Sall moo mag Macky 2012 mag Benno Bokk Yaakaar loola cërub àddina du ko yàq ndax yàllaa ñu boole. problème bi euh, problème bi nag mooy dama bëgg a wax ak sama njaboot sama njaboot famille politique sama njabootu famille deret sama njabootu famille dëkkandoo soppe yi xamal leen ni ginnaaw ñoom ba ñu waxee la leen naqari ndax loolu moom la àddina baaxoo ndax soo jiitee ay nit. yor ca ndombak tànk ba ñu dindi la ko te waxoo dara te nungu woo ñu wax day mel ni daa am leneen lu xew te xam nañ ni dara xew dama leen di ñaan li ñu meroon lépp ñu teg ko ci suuf te jiital intérêt supérieur l'intérêt supérieur réew mi mooy ànd ak le président Macky Sall rangé wu waat ci ginnaaw le président Macky Sall ndax le président Macky Sall kat moo soxla ndax dama leen ni bërki démb am nañu exemple bu doy sëkk ci wan sénégalais yi ndeke boo defee nit président de la république da koy jox majorité bu ko mën a permettre mu yeggale sànce yi mu yi mu door am nañ ci exemple bërki bu ci géejaway wane nañu ni won nañu yàlla won nañu ni majorité présidentielle réew mi moo ko soxla ndax moo soxla stabilité ndax majorité euh, présidentielle kat dina indi jàmm cim réew majorité présidentielle dina indi stabilité cim réew te ku nekk xam na ni fii àddina bi toll mbooleem réew yi Afrique yi ñu war wër fi amoon essence wala gaz wala euh, ressource naturelle bu daan génne ci biir suuf si saay-saay si jaar nañ fa fenqale leen ñuy xeexoo ñoom ca seen biir ñuy piété alal ja di ko génne réew ma kon nag loolu nun dañuy bañ loolu dal li ñu naqari lépp nañ ko teg ci suuf le président Macky Sall dégg na leen te leer na ma ni dina ma dégg kon nag dama koy ñaan mu recevoir waa A3J wax ñoom ndax ci njabootam la ñu bokk te booba ba léegi nag li yàlla dogal ca biir a 3 mooy ku ñu àndal yaraax nga jël yaraax kon nag li nga xam ne daal moom laay moom laay dénk waa a 3 mooy ñu jiital intérêt supérieur u réew mi nañu nañu takku jàppale le président Macky Sall nan takku wote liste Benno Bokk Yaakaar non seulement waaye nañ wàcc sur le terrain liggéey pour liste bi gagné. wax ji moo rafetul te seenoo ko ci fi mu jóge ndax nit ku yiw su fekkente ni ñi ngi lay askanale ci askan woo xamante ni ñëpp a leen jox cër ci àddina bi damay wax ni saa yoo juumee ci kàddu rek askanu lëmm nga ja nga gaañ Cheikh Abdou baar juum na tey ku yar say moroom dee nga nañu wax ci li ñu séq muy réew mi nañu wax nu ñuy fexe ba développer réew mi ni ñuy fexe ba njàng mi teg ci yoon ni ñuy fexe ba jàngalekat yi bàyyi grève ni ñuy fexee ba santé bi jaar ci yoon ndax bul fàtte ni man réseau population développement de l' assemblée nationale maa koy coordonné di xeex lutte contre la mortalité maternelle néonatale et infanto-juvénile je pense que ci yooyu la ñu war a wax mais attaque individuellement personnellement nit ki am njabootam nga di ko attaqué c' est honte rafetul te rafetlu wu ko te benn nit ku yu du ko rafetlu kon Cheikh Abdou Dioum na bu baax a baax a baax Mm-hmm. waaw léegi moom looy sàkku ci moom dañ koo war a dafa war tuub ñu jéggal ko wala yoon du ko war a topp moom sës. waaw xam nga xam nga euh, bu jéggaloo mën nañ ko jéggal te loolu ci grandeur la bokk nga xam ni juum nga nga jéggalu ci grandeur la bokk je pense que loolu mooy mooy li li ëpp solo en tant que nag euh, doomu tuubaa wax dëgg yàlla maa ngi koy ñaan mu jéggalu rek te xam ni juum na. ci ni ñu gisee nit ñi di doxalee ci wàllum politique jàpp ngeen ne loolee yoon bu baax la wala luy dem di indi jéeyal ëllëg lay doon ci biir dëkk bi. waaw lan ci ñuy doxalee Sénégal jamono ji maanaam genre politique bi am nga wax bopp xam nga tey su fekkente ni da nga ni danga bëgg cohabitation da nga bëgg cohabitation tey bu ñu amee majorité moom président Macky dañ koy génne réew mi te président Macky Sall ñu. élire ko démocratiquement déjà xam nga ni teguwul ci yoon kon defe naa ni ñoom war nañu defaat école politique formation renforcer leur capacité gëstu il faut politiciens yi ñime gëstu il faut politiciens yi jéem a cultiver te pour nga cultiver il faut nga gëstu te pour nga gëstu foog nga ñime wéetaay waaye yaa ngi ci réseaux sociaux yi loo gis rek gëm ko loo dégg rek gëm ko ñun dañu am suñu ay valeur suñu ay valeur mooy yiw suñu ay valeur du saaga ku la mag te teewul li ma war a def ci politique yëpp maa ngi koy def te teewul fi ma war a taxaw sama réew yëpp maa ngi ko fay taxaw kon je pense que vraiment li li li am solo daal mooy il faut ñu yaraat suñu bopp ñun ci suñu bopp pour que ñi nga xamante ni ñoo topp ci suñu ginnaaw muy sénération bi di ñëw parce que xam ku ne xam na ni 62 pour cent moins de 35 ans la kon suñu population de dafa jeune te xale yi dañu engagé wu politiquement mais il faut ñu am ay référence il faut ñu am ay référence il faut ñu ñuy opposé wu mais de manière républicaine maanaam liñ koy laaj ni xamu ci dara dara dara dara ma jogandoo bi rek a ko yóbbaale alors que nit ñi suñ la toppee gëm la da ngay fexe ñu am xam-xam ci li ñuy def ni ngay fexe ñu am am xam-xam mooy da nga leen di wutal ay expert ñu di leen defal ay renforcement de capacité di yokk seen xam-xam ci li ñuy bëgg a def école de parti il faut mu jël si waat Sénégal